kenn ku ne naan fii laa far wala kenn ku ne jéem a defante say moromu jigéen. ñooñu ay góor ñooñu ay góor jigéen laa mën a jàppee. xuloo ay góor jigéen di si dugg góor yi nañ góore. Mhm. góor sa góor ña jigéen ñi sa jigéen ay góor bi xëy làng sa ay place yu jigéen làkk nga waxtaan. Mhm. da nga dem ba léegi seen terme de wax yi sax man de billaahi wallaahi waxuma leen de mais góor bi am ay terme jigéen sax a fekkaat. ay ñoom yooyu noonu di toog noonu di toog ak ñoom di wax di dugg si ay affaire ah. loolu nañ ko nañ loolu yàlla nañ ci yàlla musal man de jomm naa fréquente ay jigéen toog seen biir hmm. man samay xarit yi ngeen ma fekkal nii hmm. fii ma toog nii sama kër xarit la kër Tafa Diop dëbb borom dangos nga xamante ni ciment bu jong bu baax bi moo koy jaay boo si bëggoon camion léegi mu jaay la ko moins cher ñoom lay toogal di waxtaan ay waxtaanu milliards waxtaanu million ñoom sëriñ gars yi fii AIC bi fii la ñuy nekk ba fajar di waxtaan hmm. jigéen bu ñu rax bu ne non jàppal ni maanaam jabaru kenn la fii wala mu ñëw war am lu a dox génnaat mais jotaayu jigéen dafa am jotaayu góor dafa am jigéen buy toog ci jotaayu góor bokkul ak góor bi dem fekk ci ay jigéen toog seen jotaay mel ni fekk mhm. gars yi nañ nekk ay góor. Mhm. nekk ay gental meen mais gars yi léegi dañuy yambar yambarlu góor jigéen dañ fay bëri loolu nag cee war a wax. Mhm. xam nga da ngay xool ñoo xamante ne ay góor jigéen la ñu leen di protéger. bëri na fi. am na ñoo xamante ne ñu ngi si place yooyu ay góor jigéen yu mag a fay toog di ratatati di fecc di tëb di sànneeku. ñooñu ay bullshit lañ. you know ay ay lañ. comprendre nga dañ leen war a sepp ci société bi dem yóbbu leen kaso wala ñu yóbbu leen sa àll ba mhm. ñu génn suñu réew mi dañ koy yàq ñu yàq jeunesse bi mhm. góor da ngay dem liggéey wàcc toog sa gàlle wala nga toog say xarit mais toog si ay langu jigéen di laaj si ay jigéen ñu lay dugal ci ay affaire mhm. yooyu affaire de maa daf fekk la yee mu njëkk information bi nga xam ne moo di délégué Ama moom tamit ci influenceurs yi la bokk euh, ginnaaw bi euh, yoon tegee loxo kooku moom dama koy siiw si internet bi mais na bàyyi lu am mu dugal ci loxom na bàyyi maa ñemee wax na bàyyi maa am fitu wax mm-hmm. na bàyyi dugg si luñ ko dugalul mm-hmm. na moytu ay waxu jàmbur kooku mu ma ko xamee ba léegi si ay détails laa koy dégg def na fi lu ne waxal nañ ko fi lu ne mais ngala xaw ma mu ngi liggéey xaw ma liggéeyul mais bu amul liggéey na rek uti liggéey mm-hmm. moytu écran yi dafa bëgg écran une deux mu woo leen nga ñëw war a tat day wax ba dugal boppam mu ngi nii tey dugal na boppam ay waxu vocal ay sa sëyu papa sa sëyu nijaay yoonu xale newu si la jéem a liggéenti sëyam liggéenti avenir am Wally Seck mu ngi waxal Wally Seck mu ngi cadré famem mu ngi gérer avenir ak entourage am comprendre nga des ñu wax sax lu mhm. a mhm. mhm. neex sedd sa yaram bi di koso kosaa mu tàng jër ñu lay pakate kon gars yi nañ ay foo ay caxaat boo loo bëri bëri fit di wax ci internet boo eggee fële di nga rëcc li nga doon waxee. mu leer nañ fee c'est pas la première fois bi mooy trois fois ñu koy tëj di ko génnee kon délégué Amar na xoolaat boppam. na sàmmaat boppam na am sutura ci boppam na gën a fonk boppam xam ni góor yàlla la dara jomm ko. gars yi nañ bàyyi di waxal nit pour di mën a am xaalis temps xam moo fi bëri léegi di tagg nit di ko xeexaat ci internet pour mën a comp. ci xaalis mais mais maanaam mooy dunguru gis nga bay man sama baat ci kaw ken ñinul sama ciep ken joxuma ndeg ken joxuma añ kep ku ma waxal lu baax dañ ko sekk ta yalla tax ñaanuma ken dunguruma ken, man amna papa Ousmane kan mu ngi États-Unis ñu yor ñu yor ko papa fa la nek États-Unis lu soxla mu na ma ko defal te ko ko laaj samay mag ñu may staan amul kuma ci si wo telephone nako téléphone 100 francs kon duma dem si ay jambu di len ñaan sama famille fa la yello te ñaanuma len ko zeun da ngay nangoo liggey sa bop pexey bari na fi ñu bayyi wax téeg écran di xéxal gomis pour lan di waxal gomis lu baax même bu gomis toñé sax do ko nanga wax ya toñ da nga nan toño nak lan gomis mo lay cempal dañuy atté dëgg di andé dëgg comme nak di wax lu ñu leen waxloo di def lu ñu leen defloo mais fii léegi buñ la waxloo wul sax da ngay wax internet di wax pour lan ñu wala nga wax ci waxu jambu té wo koku sant lako ñepp ñëpp a ngi fii nekk di ci internet bi sax jour nga xamni dañuy fen dañuy sóob kenn waxloo wu leen est ce que buzz la wala dunguru la lolu est ce que nekul bëgg buzz du buzz dé dunguru la ndax fii déggoo fi ñu waxal yow ñu waxal la mhm. déggoo fi ñu waxal sëriñ déggoo ñu waxal wan xarañ loo parce que ñun amuñu lu ñu joxe li ñuy waxal ñëpp mooy ñuy joxe waali sek nga fiy dégg ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que lan bëgg nga waali may xaritu waali yi bëri nañ fi waali ñu ko gën a jege foofu laa xam ay ñoom tumaane njaay ak nii chaque jour ak waali ñooy ñooy ay ñoom Assane Seck ay ñoom fii nga toog nii si kanam tuddi ay xaritu waali benn batang ku ñuy wax xolal borom wooy bu réy bi nu mu tuddee sax sëriñ borom wooy bu réy bi nga xamante ni waari waaye mbaa ngi fi lay toog sëñ Assane jaxate laa wa ngi nii fi lay toog. jaxate laa men chaque jour suma xarit laa jaxate laa ak nga xam borom ko amul gàllaaj daa feebar waaw. daa feebar daa feebar woy bi la attanul coolee bëri ji waari balaa mu lay ba da nga ba pare mais moom sangu wut ñëw rek jël way bu réew bi attanu ko. mu ngi ñëw ñooñu ñooñu doo leen mos a dégg sa écran te pourtant ñooñu ak waari ñooy ndékki di añandoo chaque jour mais léegi ñu wax ñi ñëpp bu ñu séenee waari concert la. maanaam gisuñ ko karim ñi maa ngi damay daj waari man waari boo demoon nag woon xarala mu ne kooku daf may daj daf karim ak gi billaahi wallaahi taala musuma dem këram musuma ko jéem a woo musuma ko jéem a seet fekk amalu ma njariñ day woy rek may kontaan sama xol di sedd loolu laa sigam moom waykat la mais gars yi dañuy dem toog buntu kër waari wala dem toog ci parc ni waari ne waari fa lay def fa lay dem toog li ñuy li ñuy respecté internet bi waari gisu ko. wala nit ñaa ko waari xam na leen de xam na leen ñii mais sant leen lu ñuy def image yi wax ci yéen yi waari xoolu ko. xamal lu gën a di ko waxal nit ko xamante ni seetaanu la. nañ noppal seen bopp wax ci seen bopp wax ci seen carrière wala ñu dem jàngi alxuraan wax ci yàlla gars yi yeewu mais waali lii bàyyi waali bàyyi awa ama bàyyi awa lii bàyyi nangam bàyyi nangam. mais jaxata jaxata daa feebar. jaxata ak neex. yow kon révélation nga def de. non dama ne jaxata laa feebarul de. dama la ne woy bi la attub na xaritu waali benn bakkan la te du gis internet yi muy wax. waaw loolu moom nangu na mais woyam bi neex na. ay bu ñu waree. dégg naa bii rek nga dem si bàyyi ko si non xoolal léegi nee naa leen man polyvalent la man waa waa Faramaren samay xarit lañ waa Sidi Diop samay xarit lañ Kéba Seck mooy suma waykat mooy suma papa bu ñëpp doon tëgg Kéba di tëgg si Kéba lay dem ba pare soog a dem si ñeneen ñi mais aw ma sax interdit fenn suba teel. Sir Diop Matar Diop suba teel ñoom ñëpp su may xarit lañ yéen xam ngeen si dara damay dem si lewal bi damay dem fépp waale ñu muy àndal su may xarit lañ waale dem ñëpp laay dem moomoo jeen temps yi mu ngi yëngal dëkk bi su ma xarit la te laa ne woon góorgóorlul bu changé ni nga mel day baax mu ngi may si hmm. këram lañ daan toog maa moom comme nii ma ne ko billaahi wallaahi day yàgg rek may way da lay fay te yàlla nga ko sutura waaye baa ngi si ko te day gën a màgg Sir Diop mu ngi préparé zénigam jàmbaar la champion la waale mi ngi préparé le 27. ah gars yi bëgg ñu préparé ñu bëgg tëgg ñu bëgg fesle. après koor gi looloo jaral liggéenti. Euh, bala euh, nga xam ne mooy euh, li moom moo intéressé li ngeen di wax nii yëpp amaluma njëriñ. Ah, man ndog yooyu moom amal njëriñ. ndog yooyu. ndog yooyu nga ndox mu sell bu neex bi. lii. barke alxuraan ndox mi oh ndox mi waxuma la dara sax mais boo koy naan suñu borom da lay jéggal ci lu bëri. kon mbiri naa eau ngay naan. incha allahu rabi bu sedd guy. oh. Saalum Ndiaye sama xarit. yal na ko yàlla may jàmm. may ma ndox mu bari may ma xaalis bu bëri. Saalum Ndiaye. billaahi wallaahi tallaahi loo def ren déwén yàlla na yokk daaw defoon nga ren yokkal nga sa loxo déwén dee gën a yokkaat ci kàttanu suñu borom. Saalum Ndiaye DG Medina o oh, moom moo may ndox mu bëri may ma xaalis bu bëri ak doomu ndeyam mëgëy mëgëy tey ak Saalum Ndiaye li ngeen ma def non bu continuer nii rek ndog yi moom mun naa dem jëndi dara lu xar.